Sara Konaré ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ci ànd beeg nun tey ci waxtaan wi ci Rewmi FM doon sunu ganuk bés. yow yaay secrétaire général syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci pétrole ak gaz bu Sénégal. boobu lépp kuréel nag ñoom dañoo fas yéene banque seen yoxo ci bés yenu jëm. Euh, daanaka sax ne ngeen da ngeen di jëmal benn kayitub euh, dànkaafu di préavis de grève. lan moo ko sooke ak loola tey jii bu amee maanaam ngeen ne du ngeen faste xànc ak moromam lan mu nar a doon jeexital yi waaw loolu dañ ko décider tey dinañ ko jébal kilifa yi pour ñu xam ko parce que ñun nag kom lépp dañ koy teg ci norme dañu jaarale yëpp waxtaan lañ jiital nag waxtaan nañu ba tay ak suñu njaatige bu ñuy waxee société générale de surveillance SA muy SGS Sénégal nga xam ñoom ñooy nekk ci contrôle produit conformité di def marquage dem ci labo yi def avion yooyu yëpp ba ci àlasar produit produit génn stanker produit génn te contrôlé ñu nekk di waxtaan ñoom bi ñu nekk ci pétrole ñoom seeni nit sax ci syndicat pétrole lañ bokk mhm. loolu auxiliaire transport lañ leen doon jël inspection moo ko réglé ne leen non ñi pétrole lañ bokk yóbbu leen leen pétrole nan nga mën a expliquer ñoom ñu nekk pétrole ci syndicat ñun ñu am convention collective bu ñu def benn bataaxat bu ñu liggéey ci deux mille dix muy coppi nekk nu liggéeykat di leen jox un treizième mois di leen jox indemnité logement ci wàllu dëkkukaay di leen toppatoo ba gunge leen ci retraite ñoom ñu ne non yéen bés bu arrêté bi ñëwee arrêté mooy bu ñu defee dara tënk ay kayit bu pare ñooy nekk ci signature ba xam ne ñoom mënuñu faa nekk ci signature waaye ñu paree autorité day génne benn bataaxal ne yéen ñii bokk ci ah, parce que sphère bi dañ ko définir dañu naan ñii ak ñii ak ñoom fii jaaykatu meew newu fi jaaykatu pétrole ñoo fi ne ak ñii di ñu ne ji ci bokk da ngeen di def nii fekk gars yi doxalee nii parce que sinon da ngeen di concurrence seen bi kayit bi génnee ñu ñëw jox ñu ko ñu jox leen ko donc ñoom ñu doon kayit su génne ñu appliqué ñu commencé nag indi ay tuur lëndëm dem ba caag na noonu ñun ci benn pàcc bi lañ koy def duñ ko defal ñëpp leen déet loolu mënul nekk nag sëñ mënul nekk ci kër mhm. ñëpp mbokk ay règle ñëpp di bokkandoo liggéey nga naan ñii jox du ma jox ñe loolu mënul nekk kumba am ndey kumba amul ndey ñun ñu bañ mhm. ne leen ñëpp koy nangu mbokk ñu commencé dem ñu dem ba ci yàgg xamuñu lan moo xew ñu sumeeku carrément ne ñu nag defatuñ ko sax fas waaye dëkk bi nag dañu waxan dëgg du waaye lu neex waaye def loolu mënut ta nekk. Mhm. léegi ñun ñu saisir inspection du travail ba ñu demee inspection régional bu Dakar inspecteur dañu ah lii kat mënuma ci àtte parce que ñii dañoo am yeneen entité yu nekk ci biir région yi mooy yeneen liggéey liggéeykat yu bokk ci ñoom yu nekk ci biir région yi ñu ne donc da ngeen di dem ci ministère du travail ñun ñu jël suñu xatal bind ko direction générale du travail ne leen nag mbir ni ngi yi bañ nañ ko montali mais ba ñu bindee ministère mu def un mois ñu bindaat suñu beneen leetar dolli leen ko muy lettre de ba tey jii te may wax yu amuñu toon te ñoom arbitré mooy seen liggéey dañu war a woone kaay leen même bu ñu doon débouté nañu see toog leen yéen indi leen argument ngeen joxe pour warante ci seen bopp ñi wax ne lii ñu wax leen mhm. waaye ca biir loolu ñoom waa EGS bind nañ seen benn lettre bu yëglu laaj waa ministère ne leen nag parce que foofu dañoo orienté un peu ñu ci lii lañ nekk nekk ci lii nekk ci lii ministère leen bu dee ci lii ngeen nekk ci nekk ci lii kon bokk Mhm. xam nga loolu jaaduwul. Mhm. donc benn parti ñun nag dañu doon xaar ministère wax nañ ko suñu njëkk yéen yu njëkk sax dañ noonu ñun duñ def lépp luy jéng ak yoon ñu ngi xaar suñu kilifa yi mu ministère du travail ñu wax ñu bu ñu ñëwee dugal ñu ba pare bu ñu ñëwee nañu tontu ñu oo ñu mais defuñu ko boobu léegi donc defuñu ko nag ñun nag comme syndicat lañ dañuy déposé suñu préavis de grève mooy bataaxal boobu ngay wax bataaxal yëglu la mhm. pour wane ne suñu defee fanweeri fan te dara xewul ñun dinañ jël su suñu matukaay banque suñu loxo duñu fasante lu ngeen koy waxee ci wolof mhm. noonu lañ koy yemalee daal di dëkk nag ba heure lu ñu am jël ah, convention collective di kayit boo xamante ni daanaka da ngeen a xaatim euh, kilifa itam xaatim loola ah, buñ ko tàmbalee jëmmal lan moo ci doon njariñ li jëm ci yéen waaw loolu buñ ko jëmaloon tey nga xam parce que déjà convention collective dañ ko booleeg benn boo xam ne naan liggéeykat bu ne dañ lay ci fa nga war ne mhm. boo ko ci jëlee ci gardien bi chauffeur bi ba ca kaw ñëpp ku ci ne ñee lii nga am ci payor lii mooy sa garaat muy benn lool rek dafa am njëriñ bu ñu ko weesoo am nañ treizième mois xam ñu koy waxee ci wolof ñaar fukki weer ak ñaari dañ ci boole benn fukkeel ak ñett weer boo xam da nga ci am droit beneen bi da am ci wàllu dëkkuwaay da ngay am euh, indemnité de lay jàppale ci nga am kër xam nga na solo ñu dem ci mu am prime de risque dañ lay topp seen liggéey bi ba ba dem retraite ñu am beneen retraite bénévole pétrole boo xam ne en dehors de la retraite légale dafay gunge liggéeykatu pétrole bi mu mën a yegg ci yenn koom-koom yi am kër donc xam nga lool am na solo loolu yëpp na nga ne yow doo ko def pendant ce temps say borom ñu koy def loolu mënta nekk loolu moo nekk donc moo tax ñu ne nag ñun loolu duñ ko nangu comme autorité bind na te autorité moo bind ñoom waruñ sax autorité bind ñu bañ ko def léegi nag ci lañ jot nag ñun mooy li ma la waxoon sànq jot nañu njaatige bind leen euh, ministère bi mais booba léegi ñun amuñ tontu waaye comme mënuñoo wax ak kenn nag sëñ bi xaaral la ñu yëglu loolu je crois moo gën seen secteur comme niñ ko xamee doon bu délicat lool ndax da ngeen di manipuler di laal yoo xamante ni ay jumtuwaay la wala ay mbir yu mën a tàkk seen kaw maara day taal seeni agent est-ce que li war ngir sàmm leen maanaam jox leen lépp luy yelleef euh, ngir sàmm leen kon est-ce que ah. dinay faral di am si si si si si suñu société yi nga xam normal nañu mhm. xam nga nag Sénégal lu ne moom normal ñu ngi veillé ci ñoom di veillé autorité baa ngi veillé société bu nekk dafa am ay normes yoo xam da ngay am cahier balaa ngay mun a mun a mun a exercer ci biir ci biir secteur bi donc loolu ñooñu ñu ngi ci EPI bi li ñuy wax EPI les éléments d'équipement personnel de de de de de da koy mm-hmm. déjà ci loolu la ñu demee ba seen installation yi aussi dañ koy contrôler parce que ministère bi day contrôler dafa am ay organe xam ne fii di def gaz war nañ def lii def lii def lii muy mot am na nag ñu ne loo xam ne comme je te dis yeneen yu rax ci biir yooyu moom autorité bi moo ko yore moo koy surveiller ku am licence balaa ñu la jël sax war nañ xool normes yi nan nga installé wu lan ngay def lan nga mën a def voilà yooyu yëpp am hmm. donc loolu dafa am solo mais ñu ngi veillé à que loolu di am léegi nag comme ni ma koy euh, ndogal kenn du rek ndogalu yàlla il faut pas que les gens soient fatalistes hmm. nañu góorgóorlu ba balaa ndogal sax buy ñëw mu doon li mucc waaw góorgóorlu boobu nag ñu ngi ciy ñu ngi ciy veillé bu baax a kon agent yi lu ci bëri avantage ak ay ah. prime de risque yooyu yëpp am nañ ko. prime de risque am na ci biir document bi. moom la lay wax koy appliqué actuellement am na seen i prime mais ñoom ñii bëgg a benn ñëpp ñii bañ a génn ci loolu dañu bañ di appliqué prime joxe treizième mois joxe voilà doo mm-hmm. seet ko benn amul complémentaire duñ jox li war duñ la sax ni war a classé woon jaaduwul mm-hmm. ñun dañu am ay salaire de base dans le secteur du pétrole voilà ci loolu la ñuy dem toog li nga xam ne mënuñ cee bañ a wax mu ngi xeew ayu bés bi ci benn njaboot fii ci Derklé benn bonbonne de gaz moo tàkk juróom benn ci ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan euh, tey ji li nga xamante ni moom lañu ñu war a wax mooy ni ñuy manipuler bouteille de gaz yi euh, tegle bi ak niñ koy sànnee loolu yépp mën na am jeexital la ak it euh, société yi samp di defar ay bouteille de gaz daanaka dañoo bëri yow ci wàll wi yépp lan moo ciy sa xalaat waaw mooy li may wax cest à loolu yëpp xam nga société yi wax naa ko léegi société yi bu ñuy samp dafa am fu ñu war a jaar ci kilifa gi suñu njaati gi ñoo lay contrôler balaa ñu jox licence mhm. donc contrôle de conformité boobu day am normalement su loolu yëpp weesoo nag ci butéel bi buñ ciy ñëw wax nga ko sànq léegi nii sànni beeg niñ koy empilé léegi yooyu yëpp conditions yi moo demee noonu mais sooy jël bouteille ci fi ñu ko defaree mu war normal foofu le risque mun na bañ toll noonu wax nga ko léegi sànq ci français bi je crois ci même ci distribution bu ñu bëggee jot population yi gën a sori léegi ak dëkk bi ni mu tëddee ci suñu pouvoir suñu moyen na toll ay charrette la gars yi utiliser mm-hmm. pour xool nan la ñu jël affaire di ko transfert xam nga léegi am na tricycle la ñu kenn xamul yooyu yëpp ñu ci dañ ci yegg mais loolu liggéeykat yi ñooy war dem ba mun ci yegg ñi jaatigee yore société yi pour xool nan la def mais je crois que loolu dafa dafa am solo mais conseil bi ma leen mën a jox. Mhm. je ne sais pas damay anticiper li nga wax may ci kër yi. ñu xam ne butéelu gaz dafa doy waar. Mhm. butéelu gaz na nit xam ne bomb la bu ñu teg mhm. bomb buy tàkk nag mënoo ko indil safara. te portable yi dafa am magnétisme boo xam ne bu ñu ko indi ci bomb yi dafay tàkk lool moo indi je crois que jëppal sax problème boobu am nii. bu tàkkee portable yi leneen lan moo mën a indi tàkk jëppetu gaz. waaw mais mooy ci utilisation gaz bi nan nga ko utiliser xam nga ñun suñu liggéey nañuy taal gaz dem seen yoon duñu surveiller duñu def dara taal rek muy fërfëri nga dem seen yoon mhm. soo amee ñu jàngal ñu def nañ jël serpillère tàkk-tàkk bu ndaw bu ñu jëlee serpillère tooyal ko teg ko ci mun fay mais dara lay utiliser gaz gaz nañu jàpp daal gaz lu sérieux la gaz ak électricité par exemple tey nañu veillé bala fàtte balaa ngay dem man chaque guddi par exemple sama kër damay dugg ci waañ bi tëjaat gaz yi kenn du tëj gaz bu boo seetloo gaz di mu ko tëj moom ba mu te gaz ak électricité il suffit nga laal benn contact pour mu tàkk donc gaz dafa attention niñ ko gisee ni bombar bu ndaw ba musiba la mën a mais kon loolu monsieur Konaré war nañ cee ñaax njaboot yi mais mu mel ni dafa des liñ ciy wax bëriwul mais dañ ci war a ñaax njaboot yi société yi def gaz di def sensibilisation jël seen xaalis di fay ñu jaarale ko ci rajo yi ñu mel ni yéen ak télévision ak leneen nit ñi xam nit ñi tam bàyyi seen xel ci loolu xam ne gaz da leen a rey ba pare balaa muy waaw donc nañu xam loolu loolu dafa am njëriñ nañ ci bàyyi xel ñun tam ñu jël nag di sensibiliser suñu kër yi proximité dafa am solo yow mii boo commencé boo demee sa kër ne leen attention tey la ma doon waxtaanee gaz kat attention xaw ma nii demee suñu bon yi tamit ku ci ñëw ci kër ñu la tegal te portable xel bi jàpp ñaar sax di liggéey di yole portable mënut a nekk mënul nekk il faut que loolu ñu qu'on soit directif li ma lay wax nga commandé maa ne ko hé boo mënut a bàyyi gaz nga bàyyi sama kër dem ak yow moo gën fàggu moo gën fagaru moo gën faju da ci am solo li ñuy mujjee mooy pétrole ak gaz bu senegal yàgg nañ cee wax ne at mi dina génn ñu di ko puus di ko puus ba tey ji bërigo yi leen sol mënuñoo fexe ba ñin ñu fi yeewoo mënuñoo fexe ba teg ci gët tardé gi lan moo ko waral d'après waaw loolu nag loolu laa lay wax moo tax ma ne nag histoire bi je ne pas dans comme man nekkuma ci niveau de responsabilité boobu li ma xam daal mooy jaatigéey ñu ngi ciy liggéey professionnels ci nekk aussi ñoom ñooy xool ban moment moo opportun ci biir parce yoo xam yembagul faaw ñu pousse ko parce que soo xoolee amuñu woon ay jamono te xaar nañ lu yàgg comme a bu mu ngi des ci ay weer ni ñu xaar rek bu soobee yàlla 2024 moom pétrole bi fala bu dis la ñëw am bi moo amoon solo yàlla dimbal nañu am nañ am nañ pétrole am nañ gaz mu ngi ci sous-sol bi ñu ñaan parce que loolu day jëriñ sénégalais bu ñëwee koom-koom bi dana gën baax njaboot yi gën nokki ñu gën mën xam nga yooyu pétrole dafa am produit ba ci produit pharmaceutique bon mhm. loolu du waxtaanu tey bi donc dafa jëriñ pétrole dafa am njëriñ nañ yàlla mu génn jàmm incha allah. ni mu amee njariñ moo tax ñu bëri am yàqin ni sax bu génnee Sénégal moo nar a dàq Paris suñu dund gën a naat am nga ci yaakaar. Ah, man de am na yaakaar mooy li ma man ah man de yaakaar lay dundee saa yi ma yeewoo moom <laughs> bu ma yeewoo fudd. fi mu ne ñu bëri ñu croiser les di ko xaar. waaw mais bu ñu croiser les bras nañ liggéey <laughs> waaw nañu ah. liggéey di ko xaarale. du noonu du ah. dëgg. jërëjëf monsieur Sara Konaré. waaw waaw waaw. man maay njaatige liggéeykat yi nag ci pétrole ak gaz. bien sûr le secrétaire général du syndicat wow. national des travailleurs du pétrole et du gaz au Sénégal. ñu yendoog jàmm. jërëjëf soxna si merci beaucoup.